loolu moo tax sax ngeen ngeen di gaawantu pour dem ci dialogue bi. non xam nga sànq dama ne la ñun bu ñu Khalifa nekkee prison man maa doon porte parole. ci boo demee ci archive bi j'ai toujours dit que Khalifa ne veut pas de grâce ou d'amnistie demandé wu ko demandé wu wul grâce demandé wul xam nga la ma doon gàcce mais mais le président de la république. oui samedi jour Korité. Hmm. ci émission bi mu def suñu naataango yu Futur Média. oui euh, El Hadj Assane Gueye moom ci boppam moo ne xalifa Khalifa la d'accord na Karim moo xaw a naq-naqal. waxul loolu de. ah dafa ne lu mu wax ma ñëw rek. dafa ne Khalifa mu ngi xaar amnistie. Karim moom daa bëgg devenir procès. te le wax Mansour euh, Ibrahima mais dans tous xam nga la la ma doon gàcce Mansour. Mm-hmm. Khalifa Sall jóg ak fu mu dem pale laqatu dugg fa ñaan Macky Sall amnistie wala neexal ko loolu gàcce la loolu du mos a am ci àddina Khalifa dafa ne man gàjj laa. dañ may weex weer bëccëg lay dem du ma dugg pale guddi du ma fa dugg laqatu Macky Sall moo ne woon Madior Fall xoolal ma les voies et moyens pour réintégrer ñi am personne du xam wala moo ko wax waxu ko moo léegi mu jaar ci am bi nga xam ne bi gën a yomb mu jaar article moo gën a yomb mais boo xoolee même tey assemblée ni muy ni muy doxee assemblée ni muy doxee mais c'est injuste mm-hmm. Mansour ñu bokkee Yewwi Askan Wi on ëppale fuuf waa PS bële. bu doon dañuy diil ba ñuy oo Pape Diop bu ñu joxee benn député moom am benn ministre mais bu ñu jëlee Macky Sall ñun nañ dugg ci assemblée bi mais loolu dafa ñaaw duñ ko def xamul tax. non boo leen ko defoon Sénégalais yi. non xamul tax parce que loolu c'est pas cohérent. Hmm. Pape Diop def na ko ah. wala dañuy leen ko. Ah, Pape Diop def na ko. am na 20 pour cent mooy chef de l'opposition fu mu ko jëlee 20 pour cent yi. Hmm. kan moo ko def 20 pour cent yi. anamu tey def ko ñun gëmuñ loolu xam lu man dama jàpp ne Khalifa Sall am naa yéene mu nekk président Sénégal. bu sottee alhamdulilah bu sottiwul c' est la fin du monde on continue le combat keneen nekk ko. loolu mooy ce sera ce sera sa dernière chance ñu bëri na c'est sa magal na ak yooyu moo tax. élection yi quel soit alpha nu mu mën a demee bu dee dil sax da ciy am mais faw mu bokk ci élection yi. ban mooy âge bi mooy âge limite bi. loolu la xam nga Mansour un homme euh, Brahim un homme politique. Hmm. sérieux un homme politique sérieux du xool boppam si nga li am solo mooy man maa ngi def politique depuis 1990 quand j'étais étudiant ak Blaye Wilane université de Saint-Louis 2020 laa doog am mandat électif nekk adjoint au maire Kaolack da ngay dox di dox ba falu fekk la dab la seen confrère seen xarit Ahmed Aïdara dañu ñëw sama kër ma ne Ahmed politique du ëmb day wasin yow dama doon invité a jotaay may ñëw chaque fois émission may politique yow nga nekk journaliste te yaa ngi nekk député maire xam nga loolu choix bu ñëw yàlla ñëw ànd ci mu liggéey ko à la base ñëw nekk député maire aujourd'hui bu ëllëgee bu ko nekk candidat président bu ko nekkee bu ko nekk day nekk président amul fixation ñun amuñu ba fixation président ou rien amul amul sens da ngay liggéey xeex pour sa réew ba foo yem keneen jël eggali ma loolu la gëm loolu laa jàpp mais je voudrais revenir sur hmm? Yewwi Askan Wi Moussa ne politique hmm. politique bu amul a nekk ah, ma ma ma de seen coono bi ngeen. waxuma loolu de waxuma loolu ne. xali sànq dama ne la xam nga doo déglu dama ne la. déglu naa ñu yéene. a déglu fi ñu mooy Khalifa nekk candidat nekk président. bu antoo alhamdulilah bu antul on continue le combat mais du ñu jaral ñu jaay suñu ngor su ñu ak suñu dignité parce que honneur ak boobu noonu dañ ci nekk démb tey doo ko ñëw. kon wax leen gars yaa ngi leen tuumal de. presse non xamal génne le quotidien. jibo ka nee na waaye jibo nee moom le ko non non quotidien jaaxaluma xam nga jibo dañu waxoon ne bañu ma ku ma yekkal ci gaalu xaj bañ naa ko fekk ma ci lekk Khalifa Sall wax dëgg yàlla man de jàpp naa ne fi ñu jaar ak moom ci jafe-jafe ci métit depuis 2014 ba léegi di xeex génn PS di daw di xuloo di werante kaso lu nekk ñu daj ko bu ñëwee ba defe lu dul dem négocier ak Macky Sall ma xam ne na kon ah mais c'est que da ngeen sonn nag moo tax. non ban jaar ngeen foofu yéen sonn ngeen si taj kaso beeg euh, perte ay droits civiques ak yooyu. léegi man xam nga kan ma sama maître. waaw Nelson Mandela. c'est hmm. mon maître. ma suis parti jusqu'à ay Robben Island en pèlerinage. en mu daj. Khalifa du daj dajul genn wàll gi. il a été historique. man borom Touba ba mu hmm. demee ñëw. donc li ñu dafa daj méttiwul par rapport ak mais mais ah, Abdoulaye ñaata ñaata la dugg la dugg prison génn vingt six ans d'opposant loolu daj na ko gëm moo ko may am ku amul conviction toogal c'est-à-dire man gêné wu ma wax naa ko benn émission télé man Moussa Taye gêné wu ma ma nekk opposant ba bàyyi politique gêné wu ma wala esim gêné wu ma parce que je suis libre yàlla mooy sutural je suis libre mais ci ci wàllu Yewwi Askan Wi si tu me le permets parce que sànq Mansour mu ngi koy wax euh,